di président Ousmane Sonko jiital Pastef woote fële sa Dakar Arena patriote yi nag mën nañ ne jamono bi fo sanni mat mu tak ndax fess na del ak ay doomu adama man nañ né ñu ci bari sax dafa melni ni ñu xey dem ndékki dé mu nekk nak lu ama am solo nek ci histoire Sénégal première fois bo xam tël parti dafa woté li nga xam nak méga meeting ba paré nak bu nekk yaa yi def sa xaalis te mu mënoon a jël alal réew mi def ko sa mu nekk nag lu am am solo dinañ si ñëw ak patriote yi jamono bi réaction yi nga xam ne nag ñu ngi koy amal fële sa Dakar Arena xam ne nag mën nañ ne mbooloo mu takkoo takku jamono bi moo foofu féetee. suñ programme bi leen dong laa siy jooyte di ko méttitlu muy nit ñi duñ fa xaj lii dong mooy la ma si naqare man muy nit ñi duñ fa xaj stade bi dafa tuuti waaw dina fees ba nga xamante ni bi nit ñi ñëpp ñu bari si bit la ñu nekk mën a dugg. stade ablay wad ba lan ko warono yob yene mom a état bi yene mom rew mi am ngeen sañ fu len neex bo fa seen mbooloo kenn amul sañ-sañ taxaw naan pourquoi quoi ngeen koy def te kenen ku beug wo mbolo ku ne di di demander ap stade si yeen lay jaar yeen yore ngor gi len si yeen lay jaar demander len autorisation ba ngeen jox autorisation mu dor ko man def waye yeen mom fo len beug dem fu ne di ngeen fa dem sa ngeen ni demander autorisation sa ngeen ni def dara muy préfet muy gouverneur yëpp parce que yéen seen kilifa yéen ne si nguur gi ñooñu ñëpp nag ñoom ñoo joxe ordre yi te yéen eh, premier ministre moo leen ëpp doole gën leen a kaw kon ba tax na kon man li may jooy si programme suba bi di ko si naqarlu te eggagun sa nag mooy nit ñi di leen dagg seen yitte ñëw bëgg a dugg du nu mën a dugg si biir fekk mu fees dell li may wax patriot nag képp ku bëgg a teewee sa barab bii bu yóbbalaat moom boo mënee ba man bul nekkee sa kër wala foo ndekkee solo say dal sol sa yére aw sa yoon wax waaw añal sa stade ba na la fa añ heure fekk añ fekk booy dem jëndal sa 70 yóbbaale ko baa nga defar sa 70 bu baax yóbbaale ko boo amee sa yàpp nga defal sa 70 suba teel bu dee borom kër la na ko jabaram defaral bu dee célibataire la na xëy suba jar teel ut duuru ñoom saaf aw yàppam bu dee amul yàpp na defar omelette ba amut nenu baxal defar ba mu baax 70 yi muróom yoraale bitéelu ndoxam bu amee boisson teg sa waaw nga xam balaa 10 heures fekk na moom jël la place ba toog heure añ jotee mu daal di xàmp mburóom lekk Sénégal jëm kanam ku yéex ñàkk de ku yéex doo am foo toog nag waaw xam naa daal man li ma si naqari daal da ko si naqari ba naqari di ko naqarlu mooy dina am ñoox xam ne dañu jóge seen kër jóge fi sori ndeysaan ñëw ba si ñu leen stade di fees na limite bi euh, lim mu waroon a def mat na kenn dootul duggati ña sa des ñëpp taxaw ci biti waaye nag garaawul jar na ko de jar na ko. naa moo mel ne politique bu rafete ni celui-ci nii de moom maa ngi koy doog a gis. politique boo xamante ni yow sa leader jëlut xaalisu askan wi di ko luye ay kaar ak di leen ko jox dix mille dix mille wala trent mille trente mille wala trois mille trois nga xam ne day génne ci keesu réew mi di joxe politique bu mel ni nga xam ne yow yow mi ko bëgg yaay làmb ci sa poos teg kii joxe téeméer kay joxe mille francs kay joxe deux mille politique bi mel ni moom maa ngi koy doo gis moom dëgg yàlla nag neexul ba neexut dañ koy wax te dund waaye lii man lii neex na ma nga xam ne koo fa séen dooley boppam ab coalition mouvement buy génne xaalis jënd ay nag rey togg lekk boo fay dem moom xalaatoo ay mbana daje ñaan ña ngay kër premier ministre ba fa la ñuy rey ay nag ak di togg jënd ay tiset tet li mom mang koy dog gis way am rew ay ndaw ko yor ndaw yi ñak caaxaan ndaw yu gëm seen bop ñoko yor de way ay magat tax ñess ay seugal ci gil gëmmal xepil dugal digal bul dem bul <laughs> non non non non ay ño xamanteni dem ba mënatuñu wax ñu lay jotale ak mag ño xamanteni dañu dem ba tok ci ay milliards milliards am rew ndaw ko yor way man di li mande ngi ci bëgg de nga man de dem na bi beug déposer pour nek député waye ma dal ginaaw ba mi metti ken xamewuma ci Ousmane duma nek ba heure bi dal man lolo tax ma retiré wu tay mu jampa jamp yoon wi ngay wara jaar sore sore lolo tax ay dal xamna ni politique bu rafet la de lui c'est na lolo ku fa mën a teew du eh, eh, keesu réew mi man daal looloo ma ci gën a neex keesu réew mi waaye lu mën a xaw nga tibb ci keesu réew mi sëddale ñu xottee ko oteesoo ko jënd ci nag togg lekk luye kaar yi joxe trente mille trente mille ña ci gën a suufe vingt mille vingt mille ña ca topp dix mille dix mille ña ca topp trois mille trois mille gone yi di ko génne naan ni ngi nii trois mille pour dëggal Pastef ni carrément koo xamul mënoo faa ne xoolal ñiw tànn ñu war a dem député amu ci kenn ku Pastef xamoon ni ñii dañuy dem yaakaar nga ne ñii dañuy dem député dañuy dem dañ leen di investir soo tànnoon lu mat mille et personnes ci biir Pastef ñu la ràññeel ñun foogoon ni ñoom ñooy dem kenn demu ci wala boog bu ci amee ay ñaar la ci doon ak ñett ñun foogoon yées ñëpp ay surprise la loolu moo la xamal ni il faut nga xam Pastef naka lay doxee xam nga damay dégg parfois gars yi am na ñoo xam dañ naan bokk ci xew yi. xam xew yi moko gën nit ki lo lo lépp lo loo maîtriser wul da nga cey tay da nga ca nan tek tay ca lo ñu la mënoo cey bok wala do ci doo ci bokk mais da nga nan tek tay ca lolu moy bëgg ca moy yoon soko def day dal di nek lo day nek lo xamanteni manam da ngay nek ci kër doon ab def ci biir kër su lek lekk dañ lay tibbal su ñuy naan dañ lay jox su yére ñëwee dañ lay def dañ lay jox nga sol lépp loo xam du jëm ci mbirum dund da nga ciy parce que dañ la ci dañ la ci dañ la ciy boole mais heure bu ñuy waxtaanee luy avancé loo kër gi yow du la woo parce que bu amoo xel mooy loolu heure boo xamante moom dañ ko doon utiliser exemple lu utiliser mooy man nay man nay man nay man nay taw yi di saaga di wax lu ko neex di def lu ko neex mais heure boo xamante ne dañuy dañoo ñëw pour organiser defar Sénégal moom du ci bokk looloo ko dal parce que dafewul dafewul mbiru xel. defuñu mbiru xel loolu na ko na ko nan koy nan koy moytu loolu nan koy moytu nit doo bëgg doo bëgg tur am na ñoo xamante ni ñu ngi def li ñu war a def nekk fi ñu war a nekk ba leen tudd ni leen da leen war a noome nangam wala da leen a war a jàppale ci nangam maa ngi doon dégg sànq Basirou Faye di wax naan aatu bëgg dañ ko war a jàppale wala danoo war a jàppale Bayane Info taalibe sëñ Saliou xam nga loolu ñoom sàkkuwuñ ko waxuñu suñu ko waxtaanee. mais ki ñu xolal tax nit ñi xol ba xam kan dañ ko wara dañ la wara nangam loolu moy nit ki di da ngay nek ci li nga wara nek rek tok japp sa jamm so waré to waré am poste di nga am poste amana nak so soxla ay ndimbal ci sa ci sa bop lo xamanteni non lako sa bop am nga droit xol ñi nga xam japp nga ne yow ni man nang ko nga wax leen ko ñu fajal lako suñ ko mané ñu bay mais wax ci kaw waxee nu la neexee maa moom sama ba ay correct ay correct kenn moomu ko ay dugg na fi ay dem ci sëñ sëñ Muntaxa ay jaar fi dugg na fi yooyu yëpp li dal la ci lan la bokk